waaw waaw combat bi jëm na monsieur l'arbitre sifflé na génn na seen diggante Général face à Antou Ndiaye Antou Ndiaye Général monsieur l'arbitre sifflé na génn na seen diggante ñu ngi lewtoo booboy septième combat de la soirée septième combat de la soirée métti Général Antou Ndiaye Maître Général jóge Kër Massar écurie Kër Massar Molo coach Baba Seck moo ko toogal

Antoundiaye maître général Antoundiaye face met maître général wow waaw attention attention Antoundiaye maître général mi ngi bëre Antoundiaye takk na ko daan na ko Antoundiaye daan na ko daan na ko daan na ko Antoundiaye daan na maître Antunjai Antoundiaye daan na ko daf ko représenté ko daan na jële bu rëy Antou na métti général Antou Ndiaye na ko jël bi rëy na jël bi leer na jël bi amul benn werante jël ko mi ngi noonu ko koy Antou bu Dalifort bëre na bëre bi daan na métti général daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko jël bu rëy jël bi leer jël bu amul benn werante Antou Ndiaye na ko Antou Ndiaye daan na métti général Antou Ndiaye daan na métti général tey le dimanche 27 novembre 2022 sama gars yi ñoo ngi à l'arène nationale le promoteur le promoteur Samboy Fall la tête de la toujours sans production organisée Antou bu Dalifort daan na métti général